ñi ngi sant yàlla bu baax di fuublu bis bi nga xam ne mosuñ koo fàtte nga xam ne suñ xarit suñ hëllëre suñ mbokk ci yàlla suñ àndandoor ci Cheikh Ibrahim suñ àndandoor ci faydaab Cheikh Ibrahim suñ àndandoor ci mbaax ak bëgg lu baax jëflante jëflante bu baax alaaji jimloo nga xam ne man damay wax ne kenn la ci doomi baay ndax li tax mu nekk doomi baay mooy baay dafa waxoon ne al ummatu xasdi fihim an asuuqahum ila hadrati barri rahimi ma na moom ci yàlla rek la jëmoon moo tax képp ku jëm ci yàlla rekk baay ak baay googu ci nga bokk moo tax alaaj jim loo bés boobu nga xam ne dugub bés boo xam ne buñ sos la gannaawam tàkkusaani Cheikh Ibrahim la ko tuddee woon ndax lépp loo xam ne sos nañ ko ci lu baax fa lahu man sanna sunnatan hasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmi alqiyamati kon te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku dee sa jëf toog na lu dul ci ñett sadaqatu jaariya wa ilmun yuntafau bihi wa waladun saalihun yad'u lahu pour nga am mérite nag ñaanal sa baay yàlla nangu ko foog nga jéem a nekk saalih foog nga ñëw a xaw ci yoon yoon wi yonent bi wax ndax yonent bi daf ne wa waladun saalihun kon nag su fekkoon ne su fekkoon ne kenn ku nekk nag eyoonaa ñaanal sa baay ni kon yonent bi du ci teg kon foog foog xale yi nañ jéem baax xaw ci xaw yoonu mag ñi def lañ daan def di wax la ñuy daan wax bu ko defee bu ñaanlee seen bàyyi yàlla nangu ko seen bàyyi danañ am yool bi te ñoom itam danañ am yool bi bés boobu nag ñu ngi ci oo mbooleem jaam yàlla yi képp koo xam ne rek daa nga jëflanteeg alaaj jim ñu ngi lay wax ne bu ko fàtte ñu de suñ kóllëre la te fas nañ xëy na incha allahu ñu bokk ak yéen bés boobu yal na yàlla dimbali leen yàlla wattu leen sàmm leen yal na yàlla wattu senegal wattu waa Sénégal alaa jim de ku bëggoon senegal la ndax jàmm rek la bëggaloon senegal lu baax rek la daan wax ci Sénégal boo atukkee ànd ak moom lu baax lay wax ci senegal ku bëgg Sénégal xam jàmm yal na ko yàlla may jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullah